chers jeunes de Enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës jett yi lëkkaay yi ñu commencé kook jeex ci news mi del siwaat ci coow Ousmane Sonko beeg nga bëgg a faagaagal xamal ni sénégalais ci boppam ñoo njëkk dindi tuuma gi ci kawam ndax du genre am Boubacar Camara di xamle ci biir yéenekaay bi ne Ousmane Sonko Sénégal gi yépp gi lay déglu àdduna di la bàyyi xel histoire ci boppam dina fàttaliku coow li nga xamante ni dar la amul fu lay défendre sa koy xelal man Boubacar Camara réew mi quotidien ne bés bu yàlla sàkk rek kenn daal jóg ñëw jàppale Ousmane Sonko mii maître Abdoulaye Wade wala si na ci coow lii tey jàppale Ousmane Sonko yéenekaay bi ne maître Wade kay la mu njëkk a def moo di naqarlu bu baax manque d'expérience bi Ousmane Sonko am ba faf def ay erreur yu bari te lépp nag ñàkk teyam dong ko ko yóbbee Ousmane Sonko dañu ko piégé moo tax sant naa bépp député boo xamante ne mu nga a lever immunité diggante avocat Ousmane Sonko yi ak avocat wu Adji Sarr donte Ousmane Sonko jamono ji li nekk ci xolam yépp moo di jéggal na Adji Sarr mii waaye maître Diagne mi ngi xam ne ci biir yéene kaay bi ne coow li li muy bari bari du tee Ousmane Sonko mii dana wuyu ji ca tribunal ba la tribune yéene kay ne Ousmane Sonko kay maître Abdoulaye Wade ñëw na jàppale si ko la mu ko xamal moo di maa ngi yëg bu baax a baax métit gi nga xamante ne ñoo ngi la ko teg ci sama xol bi lépp lu ñu la def rek yëg naa ko maître Wade ne expérience bi rek matagul ci wàllu politique da nga koo xamante ne ni dafa fees delleke expérience ay yéeneem ak i ëpp doole lépp loo mën a gis ci àdduna moo tax faaw nga ànd ceeg tey ci coow lii nga xamante ne nii bëgguñu lenn lu dul suul la yow Ousmane Sonko Mamadou Dieye bu LD Debout di xamle ci biir yéenekaay bi ne coow Ousmane Sonko ak Adji Sarr bii loxo état bi daf ci fees dell en tout cas ca lew nañ nga seen moom jeune marabu ya ñoom ñëpp jug nañu fas yéene jàppale Ousmane Sonko mi lii quotidien ne coow Ousmane Sonko Adji Sarr na ñëpp xam ne nag day soo a commencé dongu mee jeexagul gannaaw ba maître Abdoulaye Wade lool lool façon nga xamante ne la ñu bëgg a éliminer Ousmane Sonko yéenekaay bi bi convoqué ne ay waay Ousmane Sonko na tey bu teyu rek ñu dugal ko ci kàmb lii la ko maître Abdoulaye Wade xamal yéene bi ne maître Abdoulaye Wade kay la mu xamal Ousmane Sonko moo di yaa ngi jàkkaarloo ku bëri pexe ñeme te mën a politique bu yoboo nga tey rek moo la mën a yóbbee ci nga génn ci coow lii l'exclusif yéene kaay ne réew mi kay ñu yor coow lu jamono ji ñett ñii la Macky Sall Ousmane Sonko ak Adji mii nga xamante ne ni ñaar jàpp ñetti semaine a ngi

nekk dernière semaine ci coow li nga xamante ni moo ko dara depuis deux semaines Sud Quotidien ne coow li koy jeexagul ndax ñoo lànk taxaw nañu ngir jàppale Ousmane Sonko mii donte jamono ji ñoo ngi njortu ne test ADN bi ñu leen di forcé mën na am ay piège ca biir waaye ak lu ci mënti am faw mu wuyu ca yoon Walf Quotidien di ñu xabal di Ousmane Sonko kay gàddu nay bagaasam fas yéene dem ci yoon ndax altinek tey gi assemblée nationale dana ko libéré waaye nag ñàkkul ay pexe yoo xamante ne ni moom Ousmane Sonko mu ngi koy teg ngir bañ a teg tànkam bii ca tribunal ba gën a la nëmal bi lii mooy ay pexe Ousmane Sonko les éco yéene kay ne ne jigéenu Pastef yi ñoom tamit dañoo takk seen i ndigg fekk Sonko ta koy xamal ni mënuñu la bàyyi benn yoon ñoom jigéenu Pastef yi di xamal sénégalais yépp ne jamono ji Macky ci boppam moo bëgg a sacrifier Sonko yéenekaay bi dellusiwaat ci kàddu Maître Abdoulaye Wade mi xam le ne wallaay am naa ay sentiment yu métti ci xol ci uuma gu ñaaw ñu teg ci sa kaw yow Ousmane Sonko donte def nga ay erreur yu bari dara tegul la ko lu dul ñàkk tey yéenekaay bi dellusiwaat ci xalaatug Latif Coulibaly ci coow lii ak topp gii ñu topp responsable Pastef yi ci jamono ji nga xamante ne nii kenn par kenn la ñuy jàpp di leen convoqué ci section de recherche yéenekaay bii di suñu làmb moom dellusiwaat ci tafaatin mii defal ñu gëstu bu yaatu ci moom ak entraînement am yu métti yi yéenekaay bi ne tafaatin jamono ji physique dëgg la nekk ak entraînement ci boxe ngir rek mën a jàkkaarloog Boy Niang 2 mi yéen ko lu diis xëy yàlla lu sàkk lii mba jàmm